Mbacke. waaw ak Tuutaan Njaak Mbacke. waaw ak Abisatu Mba astafurla Abisatu Njaay. waaw <laughs> ak Abi Dioum. ak euh, ak ki nga xamante ni mooy euh, Jatulay Aydara. ak kan ak euh, Tuutaan Mbacke. ak kan ak tubaarkàlla madame Mbacke bu bu Fees. ak kan ak Lawla Cat maam Soxna Lo bu Atlanta. ak kan ak maa ngi wër ci sama xel mi. ak laaw la cat ak laaw la cat ki nga xamante ni mooy Adja Jaxeer waaw ak tubaarkàlla ki ngay bëgg a laaj muy ku baax ki ak laaw la cat ku baax ki nga xamante ni moom la ñu dénk aéroport muy Pape Mayel Diop ak tubaarkàlla Serigne Abo Mbacke waaw Serigne Abo Mbacke bal la Mamadou Ndiaye tu exagère bàyyi sama Serigne ay Mamadou Ndiaye bàyyi sama Serigne Mamadou Ndiaye bu ma solo mu jël li ma sol sol <laughs> du Ndiaye bu ma defee émission mu def émission bi Mamadou Ndiaye bu ma amee gel ci télé bi eh, dégg ni këram lay yendu mm. Mamadou Ndiaye léegi nag ki sama sëriñ la bëgg a jébbalu nag il exagère sëriñ Abo Mbacke kii kan la nii Ndeye Mbow léegi nag du ngeen bàyyi sama yaay yi nag yéen tamit ëppal ngeen Adja Ndeye Mbow jongu mii man rek maa ko moom maam Ndeye Diouf mu sëriñ Fàllu Ndeye Mbow jongu mii sama yaayu bopp la bàyyi leen su ma amee yaay ngeen jël man maa ko xëcc man ci yow léegi léegi man xëcc naa léegi man tamit <laughs> léegi Alfi da ngay tuddee Seyda Ndeye Mbow Jong ak colonel bi nekk aéroport ak colonel bi nekk aéroport pour Fama Thioune bu baax la colonel bi yaa ngi dégg li may expliquer waaye bëgg naa nag lépp nga beral loxo Nabou Osé madame Tall oh Nabou borom se mon jour borom c'est mon jour personnel bu c'est mon na bu ku bul wuyu. waaw je t'appelle après yow de nii nii rek na bu na naa na bu mën nga maa woo ñibbisi naa. na bu osé ah. mayoon nañu ay tissus ba léegi tissus yi ñëwagul. déedéet naa ko jëli naa ko jëli. waaw tissus yi naa ko jëli ak moom bu nekk Italie. kana Pape wax ko ma dégg. kooku damaa bëgg ñu jàll ci moom. Pape wax ko. ndax yàllaa ko baaxal. dëgg la Alfi. kana ko mm-hmm. Pape. sama waa ji. Pape waxal. sàq mi sama lan ci ma xool. waaye Aïcha Jigo. waaw kay alfi sàq mi lañ ci bi nga ni waaw kay amazon bi amazon bi alfi sàq mi ma pap doomu doomu ndeyam soxna Loota Mbàkke alfi sàq mi sàq mi sama lanc ñoom ñoom moom amazon pap sàq mi ma sàq mi ma secrétaire ba Xadi Njaay la tudd alfi sàq alfi sàq mi ma waaw sàq mi naa ko pap <laughs> ak Adja Abi Dioum mais <laughs> toog bi tey riche la <laughs> kooku du sa yaay sama yaay la laisse tranquille les mamans déjà des des des gens d'ici Adja Ndeye Mbow Jong euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax Alfi waaw ak Amazon républicaine bu mag ba ca Italie sàq bi ma Kana Aïcha Djigo. waaw kay sàqami waat ma waaw waaw Aïcha Djigo la. sàqami ma waaw elle est très belle. kookoy la classe la belle lañ koy wax. <laughs> allez on te laisse nga toggal ñu tuuti bu ko defee boo noppee ñu ñam-ñamee. aywa ma ngoog Pape comme ñu ko waxee euh, ci suba recette sucrée la ñuy tàmbalee li nga xamante ni moom mooy semaine bi xam nga léeg-léeg euh, lundi yi dañuy andi li nga xamante ni mooy ay salade ak euh, xeetu bagage yooyu nga xamante ni Pape wax na ko maanaam neex-neexu samedi ak repos dimanche moo tax lundi dañuy faral di andi yu woyof tey nag Euh, dañuy maanaam dëpp yëf yi tey dañuy dem def jëli li nga xamante ni moom mooy brioche tressée xam nga brioche tressée boo ko déggee nag xam ni mooy xeetu neex-neex yooyu nga xamante ni soo fa soo sooy di dem sa ay euh, boulanger da nga ko fay fekk mu nekk ay recettes yoo xamante ni yu ñu mën a reprendre la du ay recettes yoo xamante ni soo demee soo demul sa boulanger rek doo ko am bu fekkee am nga éléments yi nga xamante ni moom la ñu def fii yeewu leen di nga ko mën a reprendre sa kër muy euh, nen ak li nga xamante ni mooy farine levure boulanger ak li nga xamante ne moom mooy suukar ak beurre président bi nga xamante ne euh, moom laa ci def euh, ginnaaw beurre Sofia bi nga xamante bis bu nekk ma wax ko ni margarine la muy margarine yoo xamante ne dañ leen enrichir en produit laitier ba pare seen noppi c'est c'est riche en vitamine A et E xam ngeen ni beurre Sofia euh, nee naa leen bu ñu duggul ci li nga xamante ne moom mooy cuisine bi dañ leen di tartiner sunu ay mburu boole koog meew bi daal di koy ndékkee mu nekk ndékki bu complet xam ngeen Euh, moom du waxantu te lu mu wax rek dëgg la donc boo demee sa sa boutique ne ko jaay ma meewu Sofia boo ci noppee ne ko jaay ma beurre Sofia pour nga mën a am ndékki complet ndékki bu vitaminé donc beurre Sofia di leen jaajafal te di leen ñaanal euh, bëccëgu jàmm. donc Pape su ñu ñëwee ci li nga xamante ni moom mooy brioche bi patu brioche bi euh, moom la ñu defar ci suba maanaam def ko ba muy mel ni patu fataaya nga xam ne dañu jël lu toll ci 350 grammes farine jël 50 grammes beurre président par contre. daal di jël benn nen ak li nga xamante ne mooy 100 millilitres meew daal di koy jaxase nag buñ ko jaxasee beurre bi mooy mujj moo ci mujj dem maanaam suñu jëlee farine bi suukar bi euh, nen bi ak levure bi mélange ko ba nga xam ni pat bi euh, dajaloo na nga daal di jël nag sa ay dogu beurre def ko ci soo ko ci defee nag pat bi dina laaj travail de liggéey maanaam dina laaj ñu ñu maase ko maanaam dër ko ci biir ci kaw plan de travail parce que dafa nekk ay pâte levée yoo xamante ni élasticité bi bi farine di faral di am il faut que mu ñu développé ko pour brioche bi mën a réussir du bokkee benn yoon ak li nga xamante ni moom mooy pâte brisée wala pâte sablée nga xamante ni genre pâte yooyu suñ koy travailler dafay nekk travail bu rapide maanaam vite fait pour ñu bañ a andi élasticité wu euh, farine bi bii nag brioche bi daf koy laaj parce que euh, loolooy secret euh, réussite u brioche yi donc suñ ci paree nag Euh, pour mën ko tresser maanaam pour mën ko létt dañ ko jël euh, lal ko ci li nga xamante ni moom mooy plan de travail bi donc biñ ko ci lalee nga xam ne dañ koy dañ koy euh, yaatal ba mu mën a def mèche yi nga xam ne moom lañ moom lañ koy tresser donc loolu nag bu ci noppee dañuy jël nag li nga xamante ni moom mooy Nutella mu nekk suñu ay produits produits Sofiex yoo xamante ne mag yi taamu nañ ko xale yi taamu nañ ko su nangoo ubbeeku bien sûr donc dañuy ubbi maanaam bu bees tàkk xam naa léegi bijou wàcc Pape Cheikh tam taamu na li nga xamante ne moom mooy ay ay Nutella que dafa nekk ay chocolat yu noppale yoo xamante ne dafay neexal sunu ay ndékki euh, donc bu ñu jëlee euh, maanaam pat yi nga xamante ne patons yi nga xamante ne moom la ñu tàllal dañuy tibb ci chocolat maanaam dañuy jël ci Nutella bi daal di koy jéem a enfermer donc dañuy jël Nutella bi def ko ci biir donc def de telle sorte que suñu jëlee euh, suñuy lakk li nga xamante ne moom mooy brioche bi chocolat bi du génn donc chocolat bi effet surprise lay nekk bu bu brioche bi ñoree. donc loolu naka lay amee maanaam dañuy jël chocolat bi dañuy jël brioche bi daal di ci nëbb li nga xamante ne moom mooy chocolat bi donc dañ koy enrouler ñu def de telle sorte que chocolat bi bañ a bañ a nga xamante ne effet surprise bi dafay dafay jàll. donc suñu suñ ko tëjee nga rouler donc bu ñu rouler nga xamante ni da ngay gis ni chocolat bi mi ngi ci biir paton bi donc bii mooy première paton bi donc ñu ñëw ci beneen bi maanaam deuxième bi def chocolat bi ci biir. donc mën nañu bu dul chocolat bu fekkee euh, seen yaram supporté wul chocolat wala sunu mbokk yi nga xamante ni dañu am euh, ay diabète mën nañu defar brioche bi nature ni sans def ci chocolat nga xamante ni recette bi benn lay nekk wala ñu changer chocolat bi def confiture pourquoi pa wala ñu jël ay fruits yoo xamante ni ñun ñoo koy toggal sunu bopp maanaam ñoo koy togg sunu kër xam lan lañ ci def pour mën a euh, réaliser genre recette yu mel noonu donc deuxième paton bi mi ngoog pare na ñu daal di ñëw nag ci pat bi xam nga létt ñett moo koy def nga xamante ne boo koy tressé dangay gis ni ñett yëpp dafay dafay demandoo donc ñu jël beneen bi donc def ci chocolat moom it si biir laataa ñu koy tëj donc généreusement parce que wax naa ko sànq euh, moment bi nga xamante ne moom la ñuy déguster soxlawul ñuy dajji sunu potu chocolat wala suñu potu confiture pour mën a lekk euh, brioche bi donc da ngay da ngay brioche bi day ñor rek nga dagg daal di jël nag sa meew Sofia def ci sa kaas pour mën ko ndékki pour changer euh, tuuti suñu façon ndékkin maanaam surtout dimanche yi nga xamante ne euh, repos dina am maman yi dinañu am euh, temps nekk ci kër gi donc pourquoi pas reprendre li nga xamante ni moom mooy recette pour mu mën a servir ñu de ndékki mu changer tuuti sunu ay euh, mburu xale yaa ngi ci vacances te dañuy war a participer ci li nga xamante ni moom mooy togg bi donc façon la boo xamante ni ñoom dinañu mën a intégrer waañ bi mu nekk plaisir boo xamante ni mën nañ ko partager sunu ak sunu ay doom donc Pape suñu tolloo étape bi dañuy jël li nga xamante ni maanaam mooy brioche bi daal di koy tressé nag donc bu ñu ñëwee dañuy jël ñett yi dajale ko nii ci kaw donc bu ñu ci paree nga xam ne da ngay gis da ngay gis ni euh, trois trois yi la ñuy létt donc buñ ko léttee denc buu bi nii ci kaw donc yeggali létt bi nga xamante ni da ngay am sa brioche boo xamante ni maanaam brioche tressé brioche bu ñu létt la donc Pape nii nga ko gisee nii euh, benn étape rek moo ci des muy euh, élément dorure bi nga xamante ni su ñuy defar sunu ay pâte levée dañ koy faral di def muy benn euh, jaune de boo xamante ni dañ koy bati daal di ko ci nappe yéen a koy gis nii ma enfourné ko nag léegi su génnee ñu daal koy yéegalal Pape Cheikh pour mun ko déguster en privé xam naa tey moom brioche bi du doy euh, benn yoon parce que ñi ñu ko yakkal macha allah bëri nañu bu ñu paree rek mën ko déguster war ñu lekkal leen seen wàll donc Pape ma enfourné jël li nga xamante ni moom mooy euh, jaune jaune bi daal di koy badigeonné ci kaw laataa ma la koy andil pour ñu mën ko déguster en privé. Baye Seer. waaw c'est bon. merci Diallo. ñu ngi xaar mu ñor. maa ngi nii xanaa da ngay da ngay ndékkiwaale ci suuf. non non pourtant dama doon naan café rek. ah yaa ngi sàq mi de. waaw ma mi kat euh, sàq mi te yooyu dara nax sa bopp la. ah waaw d'accord dëgg la ndeysaan. waaw donc maa ngi enfourné. merci d'ici 20 minutes incha ñu dégg si ñu ngi lay gërëm bu baax. aywa tout à l'heure